nell'ampita. toujours dans votre journal people de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian ñu ñëwaat ci actualité bi nga xamante ça la chronique de la presse muy affaire de lesbienne su ñu affaire de lesbienne ay yëmbal ginnaaw euh, Koku, nga missionnaire u euh, business la euh, ministère de la jeunesse missionnaire boobu nga lesbienne ne ay lesbiennes ñoo ko tegoon dil foofu ca Ravin nañu ci affaire boo xamante ni mi ngi soxal kii di ñu naan awawat awawat suñ ko ak awaña nyomit it jàmpani ji ñu ci loxo génnee loxo yoon police tegaat na leen dil manam muy affaire lesbienne lesbienne nak su ngeen ko déggee moy jigen ak jigen buy sey comme góor jigen manam góor ak góor buy sey donc ni mu amé ci non la ci si muy affaire lesbienne du nouveau rebondissement dans l'affaire dite des lesbiennes de Yembel on se rappelle euh, du fameux procès à la barre du tribunal de Dakar euh, en 2019 d'une jeune fille du nord de Awawat lesbienne qui avait tenu en haleine les Sénégalais chef d'un redoutable gang les lesbiennes de Yembel devant le juge Awawat avaient assumer son orientation sexuelle sans gêne jàppale ni que en 2019 il ñu leen yóbbee foofu ci baar kii di Awa War taxawoon na ci kanam juge bi assumer orientation sexuelle am xamal ni que mom jigen la mais sentirul góor xamul dara ci góor liko neex moy di sëy ak jigen ak jigéen hasbunallah yal nañ ci yalla musal deg donc nañu ci doy malheureusement l'expédition punitive organisée au quartier de Tiaroy Léona Durand le week-end du 24 au 25 août 2019 par une vingtaine de jeunes filles qui euh, de la de sa mafia se solde par une condamnation d'un an de prison ferme pour acte contre nature, destruction des biens d'autrui et menace de mort dans sa livraison muy lundi bi ñu génn suñu libération bu Cheikh Mbaké Gissé, révèle nañ arrestation d'une de ses alcoolites du Ken ku Awanyan. Awa awawat bañ ko alcoolite bu mag la en effet le gang avait agressé à coups de bouteille et dépouillé un chargé de mission au ministère de la jeunesse d'une forte somme d'argent awawat Alpagé des limiers était aux trousses de awañan qui avait asséné le premier coup à Awa final

dell'ampita. Dell'ampita.